dañuy man maa ngi tudd Saliou Badiane maa ngi war a ñibbi Koungheul dans la région de Kaffrine euh, huit heures moins ba léegi maa ngi fii oto Ndiaga Ndiaye laa dugg bu 40 places depuis huit heures moins mais ba léegi oto bi feesagul te maleureusement fii condition yi nga xam ne moom la waxoon ba léegi gisaguñ ci dara parce que li njëkk mooy thermoflash kuy dugg ci garage bi waroon na am thermoplage ñu identifié la depuis ma ñëw fi man depuis huit heures moyen amul benn passager bu identifié en ce qui concerne les euh, les amul benn gel bu fi nekk amul lave-mains bu fi nekk présentement. waaye jël départ am na man ci sama kanam plus de quatre quatre auto départ nañ fi ñu ngi jëm Dakar mais jusqu'à présent à ma connaissance gisaguma ko gis naa ay clients yu ñu enregistré ñu dem léegi. ci sama kanam man ñaari oto de départ nañ. Oh, gisuma thermoflash pour ñu identifier pour ñu xool nit ki ndax ànd naa feebar wala anta feebar bi gisuma aussi nga ñëw ñi la lave mais nga raxas sa loxo gisuma ko fi gel hydroalcoolique gisuma ko fi nit ki suy wax nay wax dëgg rek man conditions yi yàkkamti woon nañ ñi libéré nit ñi pour ñu dem parce que man lu ma trois mois et quelques man sama quatrième mois nekk fii bëgg a ñibbi. esclave yi donc mesure barrière yi ak lu bon bon bon buñ ko mën mënut a def itam ñu indi loo xam ne au moins ñu indi loo xam ne au moins mun nañ wax ne kii kat feebar bi nekkul ci moom gisuñ ko ci moom. est-ce que vous avez vu mais jusqu'à présent ñu ngi nii ñoom ñu toog fii kenn gisu ci dara. waaw respecté nañ ko bu baax a baax a baax góorgóorlu nañ ci dëgg la ñu amit góorgóorlu ndax andi nañu agent de santé mi ngi ci biir di xool nit ñi. ñu itam noo ngi jël client yi di leen di di leen defal seen formalité jël seen identification numéro téléphone numéro carte d'identité date de naissance départ ak heure moom la ñu ngi koy def di jël numéro téléphone chauffeur bi ak turu chauffeur bi yëpp ñu ngi koy def balaa kenn dugg coto bi da nga raxas suy ba pare door a ñëw fi ñu door a contrôler ni ngay defee nga door a def yàlla dogal na jël njëlbeen gi amoon na ci jafe-jafe suba ndax nit ñi dañ fee bareeru bari bari woon waaye yàlla dogal na taxuñ woon ñu jege lool te góorgóorlu nañ daal ba liñ bëgg lépp daal dogal nañ ko ba gis nga léegi nit ñi bi dañ ñeen ñaa ngi seen taabal yi ñii ñoo yor cette place ñi yor kaar yi ñu ngi ci dugg lax loolu moom xam nga oto yi dañuy ñëw di dugg mais policiers yi ñi ngi taxaw fee ñi nga xaye ñi ngi jóge ci yeneen raison yi bala ñoo dañ leen xool seen feuille de route ñu joxe ko ñu xool ñu door a dugg ci biir ah danañ leen laaj ndax na ngeen fa ngeen fa jóge nu ngeen fa jóge ak fu ngeen ak si lu ngeen faxe danañ leen ko laaj ñu door a daal la lépp lañ yaakaar ne la lépp di sotti waaye na xam nga kuy jàng na na bi kon dañuy door a tàmbali te lii bokkuloon ci ah, ci ñoo ngi ciy góorgóorlu daal ba fas nañ yéene norme yi lépp danañ ko doxale incha allah daal di leen wax na ne nañuy góorgóorlu tey duggee si garage ndax duggee ci mbedd wóoru ndax comme feebar baa ngi fi tey nii nga xam ne moom la état joxe nun gis nañ ci solution boo xam ne am na njariñ ci client yi ndax bépp client boo xee fàtte nga dara ci oto heure bi dañ ko ciy def dañuy def heure bi ci feuille de route bi def ci fa nga dëkk ak fa nga jóge ak fa nga jëm nga xam ne boo accès lépp loo mën a fàtte ci oto tey boo ñëwoon bu ñu génnee e yër dañ bu ñu xamee heure bi daal di mën a xam ban oto la dugg bu ñu a xam ban client moo ban moo moom bagage ko wàccoon ak kan la ko jaawalee donc kenn yokku ci dara kenn wàññiwu ci dara moom fa mu nekkoon rek lañ ko bàyyi jël oto yi moom benn